simila dëkk boo xam ne day eh, feebar faju doom bu góor la de eh, waaw réew mi quotidien ne waaye na gis nga bagage yi nga xam ne moom la ñuy fajee xale yi day na ci réew mi de maar day taali moo yi nga xam ne ko ñu ngi doog a juddu ni la seen bakkan ak ca xottu gerte maar day taali yaa ilaahi la la dama ne la nguur gi ci boppam ñetti milliards la yoreel kon programme élargi de vaccination yaa jum wala maa jum ma ne looloo am tribune yéene kaay ne xoolal ma feebar bu doy waar boo xam ne nag moo song nappkat yi nga xam ne ñoo nekk ca caarooy géej la mbir mi day ay picc di def maar yooyee yaakaar nañ ne ne dafa am luñ sotti kon ci biir géej ga looloo jur lii jafe-jafe la de yéene kaa gi ne jafe-jafe bi kay ma nga ca compagnie sucrière sénégalaise ah, ah waaw guerre bi kay nag fi mu nekk ni la ah dana saf safa xorom laa la wax mar di tali waaw parce que nag lu tolloog ñeen fukki junni ci ay tonne day lañ soxla woon waaye li fi nekk dafa ëpp 63000 tonnes ah ne kon junni ci ñoo ne kon maanaam tamit ay doomu aadama la nu semence technique day la seen mbir économie ak finance Abdoulaye Daouda Diallo waaw nee na xanaa xamoon leen ne ci juróomi at yi lée Sénégal kay tarkalla tarkalla laa la wax da doon dem de dëgg la waaye nag gis nga corona bi ci boppam mii moo jëlawu yet daal di koy door suñu kaw wér-gu-yaram gi lée ak wàllum koom-koom gi xaalis gi kay waaw le témoin yéene kaa ne waaye observatoire de la qualité des services financiers nee na Abdoulaye Daouda Diallo day ñaari médiateur yoo xam ne ne xel day tey te la fal mar di tali waaw te ay magarak loolee nekkoon directeur général ko sek waaw ak Banda Diop bu Patte d'Oie waaw loolee tamit kon nit ñi naqarlu nañu ko de lool Bassirou Ba président aar suñu moomeel day ci Vox Populi waaw nee na xanaa xamoon leen atum ren mi la dugub amul de dugub amul de dugub amul de te gis nga at ah walaay bu yeboo rek ñu xaar kon musiba mbaa ba kumba laa la wax maar day taal yi waaw waaw parce que nag dana am ci mim réew xiif la famine dana am ci dëkk bi ay waay bu ko waxati waay ah kay gi la ak wàllum ngeen la waaw nee mbay mi kese moo mën a saafara jàngoroy barsaje bal sax ji lee parce que barsaje bal sax ji mais mbas la moo min mbas la la muy kay mbas mi reyu te gis nga ab yi ah, ah. ni nag mënuñoo jaayee kilo gerte lu yées juróom benn fukk ak juróomi dërëm laa la wax ar di taali maa sax joojee day kenn koo xam ne daal dinay rëcc ne ca gaal nga galaate kon ca Cap-Vert ge ah nee na bi ñuy juróom fukk la ñu la wax waaye gis la ñu allahu akbar 66 tiis maa la ko wax doy na waar li doy waar kay source a nee na gis nga xale yi bu ñu yeggee kon ca Europe googee ngir ñu am ay kayit waaw fenn wu ne la nuy fen ay dañ naan guerre am Sénégal guerre ñun suñ dëkk guerre fa am ngir tubaab yi jox leen kayit waaw am na ñeneen ñoo xam ne day dañ naan dañ leen di harceler harcèlement ci wàllum politique la wala ci wàllum xeet ak moo am ci dëkk bi wala dañ leen di buntu xataal kon ndax wàllum diine ba ñu ay waaye kàcc moom tooy na di ah kay am na ñenn ñoo xam ne sax dañuy dem ba naan ay góor jigéen lanu mar di tali yaa ilaahi la buñ dellu see ci Sénégal gi mën nañ leen dugal ci kaso bi wala mën nañ leen rey eh waay Samba Mamadou Lamine Diallo day ci 24 heures waaw nee na musiba mbaaba kumba scandale gis nga Barça ji nga xam ni kon ay téeméeri téeméeri gone ñoo ciy dee kenn waralu ko kurul dina si fay sàll gi rek fay fay geeg sàll sàll gi lée ñoom la de parce la mu jur kat ñëpp xam nañ ko yàq suñu wàllum napp gi lée cosaan meeg mu nasaraan dëgg la laa wax Dakar Times daal du ñuy yegee le Sénégal signé kan union européenne gi ci 2020 bi waaw dañoo yee salaat 2014 ba rek renouvelé ko ci jamonoy Macky Sall gi lée la ñu ko signé atubaab yi laa la wax ci yàlla laas wàllum immigration clandestine googee a Pape Sarr mooy directeur du DER nee xale yi joxoon juróomi téeméer ci ay milliards ñenn ñi bu ñu amee ay moyens dañuy dem laa la wax uh-huh. Pape ne waaw parce que DER bi ci boppam kon financé day joxante ne leen ngay démb ak Doudou Ka ca FONGIP waaw waaw nii rek di décret rek daal di koy créé nii di financer ay entreprise ak di financer tamit e. biir la mbir mi di nag la wax maa la wax loolu de danañ dóorante yat de maar di taal parce gis nga diggante Idrissa Seck ak Mimi Touré waaw xajante ga nga xam moo nekkoon seen diggante day léegi na guerre diggantaan ngaay la wu ne wànga wàngaaral guerre ouverte parce que yow xoolal 2013 ko wax waaye léegi Idi nag moo taxaw taxawaayu gaynde ah. eh eh gis nga yorin gu sell ko te conseil économique googee waaw Idrissa Seck daal dinay weeti Mimi Touré ba pare nag daal di koy songu cay Mimi Mimi ngi ñëw mi mi ngi ñëw Mimi Touré ci l'observateur tey daal dinay attaqué de maa la parce que Mimi Touré nee na gis nga suñu mënee ah nañu audité conseil économique social et environnemental 2013 ba keroog ma fay jóge maanaam Mimi waxul ñu audité ko de daneen nañ ko tàmbali 2013 wàcc ci suuf ba ci moom laa wax parce que Mimi Touré nag nee na deretam ak judóom ngoram amul njëkk du ñuy jaay ba di jënd ah waaw waaw Mimi Touré ne waa yow ma ni bëgg am Sall day ah ñi ànd ak Macky ci boppam mbir mi miti na leen lool Déthié Faye day ci les écoles yéene waaw nee na remaniement bi lée mbéteel rek ci ñuy génn ci ñuy dugg ak bees ñeeg ñañ fa ba ci conseil économique laa la wax intérêt personnel rek les écoles yéene kaay ne waaye ndajab samedi bi Aminata Mbengue Ndiaye bëgg a ci benn salle dajale fa ay ndaw socialiste yoo xam ne day ay noon biir lañu danger la de ndaje moomee dee bu yeboo ñu def ci attention ay da njonga Aziz Diop ak ña ngi àndal ah. renvoyé correctionnel Diop Iseg day daal di ne tontu de nee na ma nga ca kër ga ba léegi ni la te nag day xaar kay nee na ay setu Seydi ci boppam waaw nangu na ne kër goo kay ay chegu Iseg la ñu ko jëndee laa la wax loolu day kaa la box boobu li ne kaaya kay ma nga ca réseaux sociaux yo topp kaa kaaweuse ci Facebook bi waaw lii kay cyber harcèlement la ak natu jëwaate borom tuddi day kaaweuse yéengi leen di wàcce dañoo magistrature yi lée bu yeboo ñu waajal seen bopp de tey ci conseil des ministres bi maa la ko wax xam nga àllarba ji ñu génn conseil des ministres amul woon waaw ndax Macky Sall daa tukki woon waaye conseil des ministres tey ci lée dama ne la administrateur yi yenn ak yenn PCA yi ak yenn DG yi waajal leen seen bopp laa la wax ah <laughs> waaw waaw waaw dama ne DG yu njëkk yeeg yu màgget yeeg yi dikk PCA yeeg administrateur yi ñañ fal ak ñañ fal yëpp nañ xam ne suñ xel mii du ma sa jóge ci pétrole bi déedéet parce que suul gaz du ko teree xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meeg ci àdduna si application Sénégal 7 indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono. xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saasi ak ci ite bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal set muy application booy télécharger rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono. nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement